waaw tey ñu ngi fii ba tey ñu ngi ñëw gis nga mbooloo maa ngi nii bare na trop ñu ngi fii ci Mewane ñu ngi fii ci Pire di xaar président Bara Ngom xam naa ne bu ndoxalee ba ci kanam tuuti du yàgg tuuti ah président Bara Ngom egg si léegi ci kaw noonu ñu day yegg benn jigéen ñu koy laaj soxna si salaamaaleykum waaw soxna si tey ñu ngi fii laaj daje bi lan moo ko waral. waaw kontaan rek di suñu mag jooju. yàlla na ci yàlla def jàmm ak salaam ci barke Seydina Mohamed. mais soxna si est-ce que tey xam nga ne àdduna bépp ñu ngi lay seeraan àdduna bépp ñu ngi lay déglu ma laaj Bara lan moo nekk soxlaam Bara lan moo nekk mbébétam tey. Bara Ngom xanaa nag bëgg gox bi rek nag bëgg a soqali bi gox bi rek ko xam nga yoonu mi waan ku jaar ku ne dina ci pour bi rek ko wax fa defar na fi mu dëkk defar na dëkkam macha allah ñu ngi kontaan ci moom rek wax dëgg fa yàlla kontaan nañ trop yal na ko yàlla dafa jàpp suy ndox mu sedd buy barka Muhammad kon dama naan salaamaaleykum saret yële mooy ñi nga xam ne gox mean lañ dëkk ñëwoon dégg ne président Bara Ngom dafi ñëw tey tax ñu jóg ñoom ñëpp jógandoo ñëw mais dama naan tey dama taxaw ak sama ndijaay joo xamante ni i faut ñu laaj ko lan mooy xaar Bara Ngom ah sama ndijaay siyaar naa la wa sama jarbaat ma ngi lay delo ziar bu baakha baakha baakha baax di am kontaan ci yow di am ci bis bi nak di bis bu reuy di bisu kan bisu barangom Ngom Bara it lii muy def di limu don di limu don lu mu doon mi teelool maamam jabi rek dem xale kon bu taxawee tey jii am lu mu laaj Bara di jambar and ki bokam. dëkk ni deetuwaay commune bi am na lu mu laaj te li mu laaj mën naa ko naa taxaw laaj commune bi mu jox ma ko ma yóbbu commune bi fi mu bëgg ñu mu yeggat muy jàmbaari fàkk tëdd joo xamante ni ñaayu xare la te doon na ko ndax ma kura maamam da daan faru rek dina alkaati ngi di alkaati ndakaaru di saax saax fa jaan di lukkat fen daan di daan fa beeñ rii ngëpp daagu sañ bënn bëri dugg wax ak tubaab del si wax ak damel mag ñi bak ko kon kooku bu taxawee dikk fii laaj commune bi li war mooy ñu jox ko commune bi mu def ci commune bi li commune bi laaj jàmbari fakk tëdd la bis bi nag fàttali na ma lu rëy bis bi nag fàttali na loo xamante ni fa tabarkalla defe naa ne booba ñi juddu yàggul ñi ñu juddu fii bëriwul loola mag ñi ñoo ko fekke woon nettali ñu ko kon tey te moom moo doon loolu ay maamam daa ko def fii ndax ay maamam bu musaa dem ba mu taxaw ba mu ne tàng ni ñuut dañuy taxaw laaj te buñ taxawee laaj dañ leen di jox te buñ leen joxee fañ bëgg ñu egg fa dañ sa egg kon kooku jàmbar la te nag loolu la doon koy baara kan mooy baara jàmbaar ja bàyyam bu baax ba nga xam ni mosul ni kenn dimbali te lu musaa fekk di def na def na soxla su musaa fekk fañ na mooy kan mooy sawru yal na ko yàlla xale àjjana di jàmbaar joo xamante ne fa tabarkalla tey jii kan mooy sawru mooy doomi maa paate ngom jooju nga xam ne fa tabarkalla maamam lu ne def na ko ci tund wi ku ne dimbali ne la kan mooy maa paate mooy doomi góor a ngom mi nga xamante ne fa la maam jaalee ku jur moom jaata jaata maamam rek demoon dëkk bu ñuy film dari jël fa jigéen jo koddi caw am ci ndari koddi caw ak maa caw koddi caw del si at meexe ma ñi nga ab sa baaba ak sa daali ab sa baaba ñu del si waat fii nag mooy njaane kon kooku tey bu taxawee laaj commune bi fa tabarkal li war rek mooy jox ko commune bi ànd moom liggéey mu yóbbu commune bi fi ñu bëgg commune bi yegg kooku mooy baara. waaw damay di la laaj. Hmm. tey commune lan lañ séntu ci Bara Ngom ak commune Mewane lan la manqué loo xamante ne tey ñëpp seen yaakaar ci Bara Ngom lañ ko teg te gëm na ni Bara Ngom moo ko war a mën a suqalil te tey boo xoolee adduna bépp pour l'instant ñi ngi lay seetaat ñëpp ñi ngi lay déglu mhm. parce que fii ba Europe États-Unis mhm. Asie fu ne ñi ngi toog di déglu mhm. tey Afrique fépp a ngi taxaw jàkkaaroo yow di la seetaat ñu taxaw fii ci biir di di seetu président Bara Ngom ma lay laaj ak lan nga waa gox bi waaw li seen commune bi avancé jëm kanam rek la bëgg seen commune bi ak seen commune bi avancé jëm kanam rek la bëgg sama jarbaat te it mbir moom bu kenn ku ne nekk ne jox ma ma defar jox ma ma defar kon waa commune bi ñoom ñooy xool ki nga xam ne mën naa defar ñu teg ko ci loxoom mu jiitu nit ñu topp ci ginnaawam mu liggéey ñëpp gis waaw. waaw bi ma juddoo léegi yàggul te xam naa ne. woysi nga ko ku Moussa séqal la mu séqal teeg yow doxal na ko ba mu jeex tàkk teeg du la war te del teeg fi nga war aw la mu séqal dana ko dawal ba mu jeex man daal li ma mën a xam mooy jàmbaar la te doon na ko waaw yal na ko yàlla jàppale ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw amiin sama ndijaay kon li ci karam raw li dama naan boolof njaay naan bu waaxul xool keneen mooy xalaatam ci bis waaw salaamaaleykum Baye Moustapha minuten keroog nga ko xeel nga ko waxoon ca newaan ñun ñi nga xam ngir teer ñaar yi nag laa bëgg nga defal ko ñaana laa lay télé bi ñëpp dégg mm-hmm. ah, tey nag ñu xale ñëwoon pour laaj ci bis allo waaw salaamaaleykum góor gi waaw Cheikh Moustapha Diagne ñu ngi wërëwër sama xol dafa sedd guy noonu soo gisee nu jóg rek sëriñ tubaa tax nu jóg ndax sunu tànk yi fas ñu ko yéene defati ci dara loolu Serigne Touba ci liggéey bi ne liggéey Serigne Touba nag en tant que may seexu Serigne Fallou Mbacké waaw ñëw na de daa baax na baax na na bàyyi ba ne ah, bi ñëw na waaw. Ah, bàyyi ba waaw kon mbokk waaw ñu mel ni liñ doon xaar lépp daanaka mën na ni agsi na nga xamante ni mooy président Bara Ngom na fi nga xamante ni mooy diwaanu Pire al ka nga xam ne mooy quatre-vingt-neuf villages yëpp ñu ngi ànd fii xam nga ñëw di teeru ki nga xamante ni mooy sunu leader ñu gis fi ki nga xamante ni mooy Cheikh mooy Cheikh Moustapha Diagne nga xamante ni ak kilifa la ci tund wi ñëw na teertu ki nga xam ne mooy doomam di soppeem di xaritam voilà gis nga ko gis nga ko oto yaa ngi nii ñëpp ñu ngi nii ki nga xam ne mooy Cheikh Moustapha Diagne ñu ngi lay ziar bu baax kilifa gi ñu lay laaj lay tey lan moo la indi ci lan moo la indi ci ndaje. bëgg Serigne Touba rek te xale bi bëgg ba te am nag man ci liggéeyu Serigne Touba bi. looloo tax ma jàppale ko man du ma politique waaye ni naa ko lépp lu mu ne ma ne ko keroog ba mu ñëwee ne ma damaa bëgg sëñ bi ma ne ko kala euh, damaa bëgg euh, fii di meewaan ma ne ko kalaame naa ak sëñ Tuubaa waaw booba ba léegi nee naa ko dangay ngay yokk rek waaye dootoo dootoo dellu ginnaaw. jërëjëf Cheikh Bara kon day dañ ci lool rek Cheikh Moustapha Diagne ba àgg meewaan incha allah. voilà kon ñu xam ne waaw président ma ngi nii agsi na ma ngi ci oto bu weex bi ma ngi ci oto bu weex bi. waaw meewaan meewaan yëpp ñu ngi nii. ñu ngi nii toog xam di ko di ko xaar xam naa ne wàcc bi mewaan lay doon mais nga ko waa protocole bu de mën na wàcc verre bi tuuti rek caméra bi jël ko même bu dee benn une minute sax de voilà voilà voilà wàcc ko tuuti rek voilà gis nga ko waa président muy noonu président mu ngi noonu saf ndaw ñi fa saf mag ñi voilà macha allah li ci def lan koy denc baag mewaan rek incha allah voilà président muy noonu voilà ndeysaan lii sedd na xol waaw lii sedd na xol waaye wo a ah, dem mi waan rek ñu respecté combat bi inshallah madam ngom i leela madam ngom mu ngi madam ngom mu madam ngom mu ngi madam ngom mu ngi noonu masha allah kaay grand frère grand leader di monsieur Diadji Mbaye voilà jaaji tey la moo la gën a soxee ci ndaje bi pour une minute rek mu gaaw. waaw ndaje bi daal li ma ci gën a soxee moom mooy maanaam vraiment am ci am ci contentement bu mag rek bu mag a mag a mag boo xam ne daal yal na yàlla defal euh, suñuy ambition daal yal nañu ko yàlla euh, defal ñu réaliser ko boo xam ne li ñu bëgg lépp daal ñu am ko ci ndaje mi quoi. incha allah kon li si des denc rek ba àgg meewaan. voilà ful bi mu ngi noonu. ful bi mu ngi noonu gis nga si jongomay taar yi jongomay bees yi waaw jël ko kaay kaay kaay sunu imam mu ngi nii mhm. imam ak sunu oustaz ñu lay jaar bu baax di la jaajëfal tey lan moo la gën a marqué ci bis bi pour benn une minute rek waaw am kontaan yàlla may ginnu may li nga xam ni mooy sunu ambition am ñu am lu mu yaakaar ci moom pour lu soqali gox bi euh, mu am ab diir gisatuñ ko won ba yalla indi wat ko ci suñuy loxo loolu rek lañ ci sante yalla di ñaan yalla yalla yalla agal mébét. amin inshallah allah. voilà kon li ci des dañ koy denc rek ba àgg mewaan imaam. jaajëf ñu rek. voilà sécurité bi mu ngi noonu. ah. ndeysaan. ah lii daw na yaram way li daw na yaram. kay kay jël suñu doyen. suñu doyen. suñu doyen suñu mag suñu xarit di Mor Khoule nga xam dafa bëgg baara ba jeex nga xam ne moom dompat sax ci sot la bokk bismillah pour une minute rek waaw nga en direct Meouane TV ok ñu ngi nuyu ñëpp waa commune Meouane ñëpp ñu ngi leen di nuyu ah. di leen siyaar